salaamaaleykum nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné ko ci chaîne bi lu ñu def lu wax la nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter que partager mauvaise nouvelle wàcc na ci kan suñu international sénégalais bi ñu naan Noah Fadiga le fils de Philou Khalilou Khalid Fadiga moom mi nga xam ne mën naa ni dañ ko convoqué woon ci match Sénégal bi war a am amical mook Bolivie ak Iran double confrontation bi mën naa ni Noah Fadiga euh, actuellement. vraiment daal blessure bi euh, xaw na grave tuuti nag euh, il est sorti sur civière ah. mën naa ni dafa am benn choc boo xam da ko dalanteeg euh, benn adversaire am la dalanteel ci match bi dafa génn à la trente deuxième minute ah, vraiment avant mi-temps bi sax la génn mu génn ci anime boo xam ne daal am na as tuut ci tiitaange lu ñu lu dul ñaanal ko yàlla delloo siwaat ko balaa match amicaux yi vraiment mu nekkaat ci forme nag d'après info ñu jot blessure bi xaw naa metti as tuutan ah. mais lépp dina jàll ci jàmm ak salaama ah, ci soog boobu mu am noonu finalement dafa génn euh, à la 32e minute gars daal ñu ngi am. as tuut ci tiitaange di ñaan yàlla yàlla na jàmm sax ci moom euh, mu retrouver niveau carrément euh, yàlla may ko wér-gu-yaram affaire bi bañ a métti yenn métti yoo xam ne dina ko empêché mu football match amicaux yi ba dem ba mondial en tout daal situation équipe nationale Sénégal xaw na yéeme trop trop trop vraiment mais yàlla baax na gars yi loolu moo nekkoon xibaar gi leen xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee ngeen kon ne di abonné ci bi activer cloche ci ñu ko defagul mais surtout ngeen di liker di commenter que partager yoon ci yeneen xibaar